sama doom nga sama rakk gi laaw la cat yéeri yéeme borom sunu laaw la cat sira dem sira sàmba laamo gàkku sàmba laamo sàmba laamo yore dem ko di tegale laaw la cat sira li nga jàndaloon yàlla dafa jàpp sira ga yaar ca kaw ca kaw tukulóor ca kaw awaas mbaay ca kaw sira ja ca kaw ca kanam awaas mbaay ca kanam sira ja tukuloo ca kaw ca kanam awaas mbaa ca